nekk jeeg nekk ci biir kër gi ngay war a togg tibbal ma man may togg di la tibbal. bu la indi lekk am fii ci kër gi bëgguñu ko. dana ko fi woon indi. xam nga dañ naan rëbb ca coow la bu amul ca yàppoo gàddu bi may woo nii du ma la ci yàlla def na ci moom rëy yàlla sax deful ci moom rëy seytaane ci boppam moo def ci moom ak rëy bàyyi topp du wàcc nga wàcc fii wax ak man doo taxaw foofu di ma tiim di wax ak wàccal maa la ëpp doole maa la dàq xeex ay ma tooñee ma noq la ba nga réglé ah. waa déglu rek buñ duggoon la ko indi dama leen di dimbali ba dee gëmu leen ko nag du ngeen am du yéen a ngi soxor di dem du ngeen am nii ngeen di deewaalee mu xaj dagg bii ak a raar kii mën a rarëy ci kër gi nag oh my god ma man man jamono ji la ma yàlla waroon a wàcc kii ba muy wàcc rek ma ànd ak moom judd mu ni curux ma ni curux ñu màggandoo rek ma doxaan ko waaye jamonoy siñaatiiroo heure boobu dara xewul ci waaye kii jamonoy fëlfëlaale sànnee ku def loolu saf ay si maa koy gis ha yooyu noonu tamit man moment bii la waroon a judd bii ànd ak temps bi waaw nga xam ni des fois sax am naa sa kersa trop waaye man li ngay def bëgguma ci dara de papa. booy lan la. papa man kii nee naa la sama doom bàjjal la mënoo koo xoolee comme sa doom. booy kii doo ma wax lu may def ah. man papa man lii bëgguma ko de. jégal li ma la da ngay def da ngay damay génn. taxaw demal sa waaye man papa li ngay def bëgguma ci dara. bul ma ah? li jënd ah. yow fa ngay mujjee man du neex de. génn ngay def ak sa bopp bi. waaye yow. ñun ne ci jamono yi ëpp naa. jaba mi moom. ëpp na moo tax ma tësi ok yow dama la gis da ngaa noppi lu waral loolu. man nii laa mel de. waaw du yoon nag da ngaa war a wax firi. ma gis suñu wootee sax yaay mu lu waral loolu. man xam nga noonu lan ma yaree moo tax. sa sikkim bi ni mu kiiwee. yóbba ay li ngay def yow man sama ko bëgg a yóbbaale ma. soo demee ñaanaaleel ma rek mais xam nga dama bëgg ñëw ma tuliyee la. yow waa ah, ah, bàyyi li ngay def man yooyu xamuma ko de. Ah, coofee vraiment seen affaire yooyu noonu nekkuma ci de. non xoolal. waaye yow bàyyi li yi nekkuma ci de. bu la daaneel. góor day dëgër xam nga dama bëgg nga dëgëral sa yaram bi. xam nga après ñëw si biir. xam nga waaw waaw bàyyi waaw bàyyi li ngay def man yii nii xam. waaw bàyyi li waaw bàyyi li ngay def man yii xamuma ko yow. waaw waaw sa sikki bi ni ma wooyee rek mel ni mboom bu lii du yoon. yow xamoo sa bopp loolu mooy sa problème dama la bëgg a tolli xoolal defanteeg yow yu baax wala après fekk ma sama chambre di xam nga sama chambre fu mu féete ah. yooyu nekkuma ci de. loolu dara nekku ci ñëwal baax. dégg nga waaw yow waaw bàyyi yow bàyyi li ngay def. waaw xoolal bàyyi dama la mag. waaw te waaw bàyyi li ngay def. naa la xaar ñëwal doy. kon man seen affaire yi dooméeraam yi nekkuma ci de seen affaire yi caga yi génne leen ma ci dinaa ko wax sama papa léegi sax. woon feeñ na man feeñ naa. tam moo ko moo ko. waaw. li li nga ko bàyyi ko ci biir. eh bu la xool jumbax bi kii di yaram na mbépp jaay ak kafe guddi ak li mu dew ci tuñ yëpp lii da koy yaram. day di kala da boole yi amul dëkk ba. xamu leen seen bopp nag. yéen fan ngeen jógee. ko bakkan bi bakkan bi la dëkk ba rek ngeen mën a jógee. seen mode de sañse rek. amul feneen. maa ngi sonal sama bopp. Eh. Eh, bële yow eh, it jógal waa léegi jógal fi nga toog. doo fi génn gi sama kàddu jaay la nga la même ba ma ne si suñu jaay pare. nga def sa sañse bii ngay mel ni njugub ak sa lii yi nga sol yow fan ngeen jógee. dëkk ba. kan ngeen di seet. man Ndiaye ngeen sama tonton. waaw sa sa mooy. waaw bàyyi kese nga xamoo. waaw bàyyi bàyyi sama la moom a wax sa làmm bi dafa du tam wala. dama dër ah nee naa la du fii yow nee naa la du fii. fii la fii mën a jaawale kër yi dañoo nuyoo. yëpp a fii la eh, eh, waa léegi fii léegi da ngeen di génn kër gi fii seen nijaay. fii ma sama kër nijaay. Eh, yaa ma na fekk. waaw waaw waaw waaw ni ni la mooy nekkuma fi. kii ah, ma man fi laa dëkk wala dëkkuma fi. léegi daal plan BB tax fi mu toll nii nga taxaw di ma xeex xeex bi baal maa ngi booy bi dong ñu xeex ko bul sot. xam nga wax ji lan la nant leen. waaw man ngay waxal yow lay waxal kay bul xeex bul jàppale booy bi bàyyi rek ma xeex ko. xam nga di lan la gis nga yow yàgg ñu yéen a yem même catégorie ngeen def ak seen kanam yu yàgg yi. en tout cas daal neutre rek. ni nga waxee sa papa. kim kii boo amul benn kii bu ko defee dinaa ko seere non garaaw muñ leen amul benn problème ba sonn leen. de su su après ma ñëw ba fii rek. yow li ngay yër lu mu doon kaay nii nga ba sonn leen. yow ñu fi xamal na tontu kii fii la def. kii ci laa leen di rey. sama doomu nijaay la. ci laa leen di rey. wuy ma waa sonn leen. déet sonn man fi xamoon naa ak sonn nañ koy war nañ fi yëpp. astafurlah yow yow. fii fii mënut xam bi. yow moom xam nga fi yàgg nga fi. agsi leen ci biir àgg leen ci biir. ñëw leen da nga réglé nag. eh ñëw leen ngeen ma coow li ñëw leen. Eh, yow na fi kan yow la wax. eh ñëw leen. waaw ba ma yeddee ma yedd la nga àndal. yow da nga am loo ma yedd. waaw man yedd naa sama bopp pare. waaw mademoiselle. ça va bien. ça bien merci. fii nga dëkk. waaw fii laa dëkk. depuis quand. depuis une semaine rek. ah bon. oui ça se voit que ni nga fi. sa va bien donc appartement bii nga nekk. Ah, appartement Baye laa nekk. Ah, ah, effectivement donc man fi mooy sama appartement. ah ok euh, fan yi sax déménager parce que dama amoon benn gan bu jógee en donc ma jox ko sama chambre mais ça va. ça bon fii moom euh, coproduction la. la donc kilifa laa comme ni fi Baye nekkee kilifa. Euh, donc moom moo yor appartement bi man maa moom appartement bële mais loo soxla rek man.

may borom kër gi Basiir lii noo ko mënee nit du mën a wax kii moomu fi dara maa ko jox pokkus gee gardien bi dëkkoon amul sax mat laa carton la fa lal tëdd fa yow ngay néew di doole ba pare ngay wër di fen aca demal xamee leen ñii booy waxkat yi dañuy wër di wax rek muyul ñii dégg nga parce eh, que yaa moom moom. Eh, déggal li. jàmm xaaj jox la transport. déggal li jël na. soxla naa la guddi nag. man soxla naa sama néeg. yaay. ah. ba ma xoolee xam ne mag mu sonn la. dama laa bëgg a delloo xale. aywa xam naa da ngaa xaw a jëm mag. loolu lañ ma fi digoon kenn def ko. jëm. aywa aywa waaye bi wàcce naa ko moom ni si kii ne damay dox ñaari paar ko. ay jaa ah man heure bii bo booy la ma waroon a fekk ma doon doon booy bu wuyu. ah Mbale da ngeen jël conseil bi yéen ma tontoo da ngeen di ñëw di wax seen kàddu te man am naa lu ma doy loo xam ne rek lay moom. waaw loolu moo tax. laay sa bakkan yaa ngi mel ni doom yi ceeb yow moo bee. bas am Thierno muy cool ah man kenn en réalité waaw dëgg nag du caaxaan yambareewu ma waaye li war a am la rek yambareewu léegi sama gars yi yambareewu